Thank you. deux fois. mi ngi noonu 25e anniversaire du parti de l'unité et de la et du rassemblement euh, pur mi ngi noonu ngi stade Amadou Barry Fini président Ousmane Sonko ànd la délégation de Yewwi Askanwi pour euh, président Ousmane Sonko ànd ak la délégation de Yewwi Askan wii pour feddali kóllëre gi ñu am ak ki nga xamante ni moom moo di sëñ Cheikh ak ki nga xamante ni moo di sëñ Moustapha Sy tey fii nga xamante ni moom moo di moom mooy le président du parti de l'unité et du rassemblement du PUR ñu di allié majeur mari allié bu am doole ci li nga xamanteni mom modi président Ousmane Sonko and ak Déthié Fall Bousso et l'ensemble de la délégation de Yewwi Askan Wi ñoo ngi noonu di aksi wayé on vous donne les premières images euh, de ce méga meeting du PUR tout en vert blanc machallah organisation bi rafet na PUR honorable Abbas Fall ñi nous puis président Ousmane Sonko pour faire am comme Nico Cheikh le PUR et le PASTEF ce sont véritablement des alliés sur. Nous ñu Nous nous feddali ko image Amadou Amadou Bari bu Guédiawaye Festel en vert et blanc président Ousmane Sonko Mingi, waja Otom, Mingi, waye mingi ak délégation Yewwi Askan Wi ñi ngi fi. le protocole qui s'organise pour que président Ousmane Sonko and ak euh, ñi nga xamanteni mom modi, les leaders les leaders de la coalition Yewwi Askan mi ngi noonu El Malick Ndiaye Ousseynou Ly Père Djibi ñoom ñi nekk fi le convoi qui s'ébranle le président Ousmane Sonko. comme je vous ai dit pur en vert et blanc en vert et blanc macha allah stade bi il na a une organisation bi solo nos alliés du pur ñu nous, tourner le regard. di séntu le président Ousmane Sonko di séntu le président Ousmane Sonko mi ngi nonu on progress wara dem nga xamantene de moment à président Ousmane Sonko wara guen Yeah. dans ce ñi doonu Moussa Tine la conférence des leaders waaye itam ku ci mel ni Déthié Fall mi ngi fi ku ci mel ni itam Maimouna Bousso yura ngi noonu yura ngi noonu yura ngi noonu indi nañ acclamé nañ xamante ni moo di président Ousmane Sonko mooy génn Samba ñu ngi noonu suñu yaay Aïda Mbodj dama yaakaar